asalaamaaleykum euh, ñu ngi ñuy ñëpp euh, di sant yàlla santaat yàlla si si fekke bu ñu fekkewaat safar bi euh, di ñaanal pèlerins yi ñi nga xam te ñooy dem yàlla defal leen yoon jàmm ñu dem si jàmm te ñëwaat si jàmm tey dañ ñëw assisté si safaru monsieur madame Fall fii si gaay jiite mi nga xam te ne moom mooy kër goro monsieur Fall di kër meen jiite di yaay si Seynabou Fall Euh, dañu ñëwoon juste pour wax si nga xamante ni moom mooy euh, moo indi safaram euh, d'après bon d'après lu jot a dégg si histoire moom mooy dafa nekkoon doon liggéey garage mu nekkoon ay moment yu difficile si moom mu toog benn jour màggal Touba jot moo gars yi di wàcc garage nu ñuy ñëwee garage moom añam ñëw na tamit aussi ñu indi ko añam moom mi gis ni nit ñi añuñu comprendre mu am am yéene am xolu jox leen ñi nga xamante ne moom la war a naññee jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi waroon dem si yoon Touba bi jox leen ko ñu añ euh, depuis lors la am yéene ne lii daf ko bëgg na ko di ko def chaque année euh, ba tey moo indi année bii nga xamante ne boobu depuis loolu mi ngi koy def mu nekk benn initiative bu extraordinaire bon te bi mu koy def nag pour pour pour kii ñoo taxoon pèlerins moo taxoon. ndaxa daan defee garage def mais danaa gis ne bu ko daan def si biir garage bi baawul euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo ko ñoo ko yitteel daawuñ si jot. Euh, loolu moo tax tey mu ñëw indi ko si yoon yoon euh, njiiteen mooy tali bi nga xamante ne moom mooy yoon bi dem Touba léegi moo tax mu am préférence ñëw di ko këram di def togg yi këram bon après su paree génn ko jox ko nit ñi nga xamante ni ñoom ñooy dem si yoon Touba bi te koo def nag te yàlla rek tax. waaye moom moom wax loo xam nga rek te moom daa baax rek macha allah bon ndaxte baax weesuwul boo nga ñu indil nit pour mu liggéey ak yow nga jàppee comme sa doom nii man mii nga xam ne ma maa maa koy defal euh, témoignage bi loolu baax weesul foofu ñu indi ko mu jàppee ma comme doom boo xoolee bu am lu ma neex laa fay def accès bu ma neex laa fay am loolu baax rek moo ko moo ko te noonu la dundee ak ñëpp tout le monde euh, kon nag ñu loolu di ko ñaanal yàlla dafa ko jàmm. yàlla wéral ko moom ak jëkkëram jëkkëram bi nga xam ne moom moo ko dooleel mi monsieur Fall moom tamit kenn du moom dooleel na ko macha allah ba ba manqué wul dara ba lépp lu mu soxla si safar bi soxlawul kenn dara soxlawul sponsor soxlawul dara lépp dooleem la koy la koy la koy defee macha allah waaye tamit am na ñu si jàpp mais yenn boîte yi nga xam ne ñoom lay liggéeyal. lu si mel ni ay Patisen lu si mel ni ay Sufiex lu si mel ni ay Setrec lu si mel ni Setrec Vitale lu si mel ni Maggi Nestlé waaw ñoo ñëpp jàpp nañ si si ay matériel macha allah mu nekk dañuy ñaan tamit ëllëg incha allah ñooñu nga xam te ñoo def seen loxo tamit ñu ngi leen di ñaanal euh, tamit doole ak ak ak yokkute buñ koy buñ koy mënee chaque année di ko di ko yokkal macha allah kontaan nañu ñu ngi remercier tout le monde yàlla yàlla def jàmm def jàmm si réew mi. dans après rek bon di jël quelques euh, ay témoignages si quelques nit tànn la ñu def témoignage si bis bi ñu si xam euh, xam naa dañ njëkk si yaayam mu def benn témoignage ak ay mbokkam ñi nga xam te ne ñoom ñoo dëkk si si koñ bi def ay témoignage merci. di sant yàlla di sant yonent bi nu ko teewee tee ko fekkewaati déwén di ñaan borom safar gi yàlla nañu yàlla. may ci xeewal yi te fekk ko di sant moo moo defaal nag bu baax ndax doole jën ndox bul woon Mooda kon sëy na bu du safar manan na bu bu jëlee bagage sa bitig ba mun ko bul laal bu jigéen su doon waxan loolu su su ko xataloon kon du safar waaye fii ne sax da ko noon na reyaat xar man maa ko nii doy na muy sant yàlla sant yonent bi di ko sant yal na yàlla guddal fan wéral cër barkeel liggéey bi barkeel Seydina Muhammad te ñu def ko ay déwéni déwén tam rafet fekk damaa wérul nag waaye man gërëm naa leen sant naa leen maa ngi leen di ñaanal nag ba yeewoo naa leen ñaanal fan wu gudd ànd ak wér di ko ñaanal sunu mbokki dëkkandoo yëpp ak baay jàmme jiite ak wa kërëm di ñaanal ñepp daal yalla na yalla guddal fami yi bismillah rahman rahim alhamdulilah rabbil alamin sant yalla bu baax sant sama borom kër bi di ñaanal seenu faal li mu man ren bu déwénee yalla man lu ko ëpp yàlla na ko yàlla doon xéewal gum koy defee seyna bu nak mom dara jombu ko ndax baxna sa alalam ji bokku nako ñepp lu mu yor joxe jox na ci kenn ku nekk la nga ca war a am mu am ko man sama sama mbokk yëpp seene bu bu dee séddale asakaam kenn ku nekk fa nga dëkk dina la ko yónnee kenn ku nekk di ko ñaanal ñoo koy ñaanal nag yàlla may ko fan wu gudd wu ànd ak sutura te li mu bëgg yàlla nag ko yàlla defal ñoo koy ñaanal digganteem ak Modou Fall yàlla na ko yàlla saxal te yàlla defal ko ci xéewal gu ni gaañu gaañaaral li mu ci bëgg lépp yàlla defal ko ko sa yàlla jubale ko moom yàlla na yàlla yàggal seenub ànd yàlla dolli seenub wërsëg lu nuy mën a ñaanal seenub rek Modou lan ci jiital jiital naa ci li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal yàlla jàpp saxal koog seeni faal yàlla yokk seeni fan yokk seeni wërsëg ينام خير وبرد ونهج كرمة يخم هلالة الخلج والخم ينام وخطايا دالة زلل والقصف والقذف ثم القصف ينام وغلة مع كنون علة ملد ثم النزاع الصلاة التي في كل سهر وفي سفر غماني هلا ما هم الابصر والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ما هم الابصر والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي ذبر هماني ألا هن الأبصر والسبر فالآهي بكوني عبد ربي قديمه عجيب به لي جاد عن النفر هديت عن المولى وأن خير خلقي عليه السلام من لو بسفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بنكسي مع الأمن والبشر براري بالمختار من قبل قادلي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر ربادي ذكورا بعد همد مقلد لباس أبدا وبي على من بي لي خاد سرا بلا قدر فساعة خير الخلق أبدت قصائدي وكوني بيا عبدا خديما له سهر هبيت أبام لم يكن قط مثله بفضل الذي كوني حبيبا له استهر صلاة الذي لي خاد كوني خليله على من بي لطيب البدو والخدر وتهات رب العرس أنقذ مائدي بجاه الذي باهت بي من ألو مدر رباي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد به وفي سفر ربعي في إخدام خير الورى بدا وفي كل سهر زيد رده وفي سفر في كل سهر وفي سفر همامي هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xanaa def ay tuuti ay témoignage rek ci soxna Seynabou Fall ak borom këram wax dëgg yàlla euh, màggal Sëriñ Tuubaa gi moom nekk na loo xam ni euh, Sëriñ Tuubaa Seex mu Ka nee na képp ku màggale bi sub tukkeem ba jihaat nga añ nga umra nga am nga yool ba nit aji na màkka sax tax xamul ba xam am na yool ba am déet nit jihaat na tax xamul ba xam am na yool ba am déet waaye Sëriñ Musaa Ka nee na ku màggale bisu tukkeem ba jihaat nga añ nga umra nga am nga yool ba mu dellu wax ni bu kenn xeeb ginaar banaam mëntu la rey waaye bu kenn yéem jëlee banaam du ma ko rey kon lépp loo xam ne nit def na ko ci rek na xam ne sëriñ bi dina ko ko fay waaw na xam na xam ne sëriñ bi dina ko fay lu lu faw xa waaw ñun daal li nga wax mooy di ko encouragé te di ko ñaanal sama borom dafa ko tawfeex ak taysiir san dëddu daara ni aajo ju faju am mbir mu jub ci barkeb Cheikhul Khadim jërë ngeen def sant nan bu baax maa ngi nuyoo bu baax eh, waa soxna Seynabou bu moom yàgg nañ koo xam ci wax dëgg yàlla ak bëgg sëñ Tuubaa maanaam li ma yem nii sax firndeel la ci ndax man ba may xamante ñoom Serigne Touba moo ma xamale ak ñoom ma ko rakkam di ñaan am faal yàlla dogal maanaam ma ñëw yem ci yàlla xam na ne bi ma nee droit rek xaw ma ni moom la waaye bi ma moom la it nag dama dama dinaa taxawal sama oto ba sànni ci ay kàddu door a dem ndax Seydou mu moom yàgg naa maanaam liggéeyal Serigne yàgg na ko moom man nag maa ngi sant yàlla baax ci yem gi ma ci yam nii di ñaan ci barke Cheikhul Khadim tayam ju mu weesu mu gàcceel démbam sëñ Tuubaa nag angaarug lem la rek nu ca waay noonu nga ci taxe beneen bi ci tege it mooy safar ji moom ba mu dalay saf yàgg na yàgg naa saf moom meru daa teroo rek safar ji tàmbalee saf ñu ñuy dem ci yi nag di jàngal bokki taalibe yi ñoom xam nañ ci dara ñun barke dem rek kaw lax lañ jógee dem fa ñaari yoon xam nañ naka la kon ñu ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa mi ngi lebal koo xam ne ku ñi ñi am ak maa ngi ñaan Cheikhul Khadim mu teg ci noonu loxo defal sànq defal màggal gu maanaam mu jàppandi ñu dem ci jàmm dellu si jàmm kenn bañ a manqué ci daraja Cheikh Ahmadou Khadim yéen ñi koy taxawoot ñu ngi leen di sant leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah